ma kër gaamu ngay booy sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gaamu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg-yàgg dañuy daje duubal na fi kër gi yëpp ah yëngal kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi jërë ngeen jëf mbokk internet di jàkkaarloo ak ñun ci luttetv.com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziare ñëwaat fi olympique club fekk fi ki nga xamante ne moom mooy Tapha Mbeur mu war a bëri ak Gamou Gueye samedi 24 décembre 2022 incha allahu rabi arène nationale ñu ci ànd ak waa Yaram Art Events ngeen war ko am en direct sur seen affiche point com seetaanoon ngeen ko nag mu dugg te ngéej ah dem ci gaal gi fekk fekk Gamou Gueye seen waa kër di añ mu jël bool bi bool bi nag dama gis moom ba léegi añagul rek 14 heures jot na dama lay nuyu bàyyi la nga nuyoo mbokki internet yëpp yaakaar naa ne Gamou Gueye mu ngi lay wër ci dëkk bi ah. yaa yaa ngi dugg ci say roq nag xam nga nga bëggul mu gis la xam nga nga bëgg ndaje bi nekk le 24 décembre maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar mbir bàyyi la nga nuyoo mbokk waaw ginnaaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu sante yàlla di julli ci Yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur bu baax nuyu waa parcelle 1 ba di nuyu waa Grand Médine Cambérène Nord Foire Cité Damel Cité Fadia xam nga ba golf bàyyi ma kenn fépp fu nga xamante ne si wëreeru Tapha Mbeur mi ngi fa rek maa lay nuyu di la sant baax di nuyu sama booy xam xamante ne ñoom laa àndal suba ngoon guddee bëccëg ku su mel ni Tafa Faye xam nga aw ma fayam ku su mel ni Mohamed Sall Aja Sall yow yaa wóor bëggee xam nga sama rek xam nga di bëggee ñoom Moualvin Mandiaye Top xam nga ñoom Père Galas Imam Kader am di Moustapha borom PA xam nga ñoom Bambo ñoom celaaw xam nga ñoom ma la sam waay kadeer képp moo xamante ne da ngay bëggee Tapha Mbeur rek ah di ma jàppale ñoom imam bàyyi ma kenn maa lay nuyu bu baax baax baax di nuyu ñëpp ñu nga xamante ne tamit dañ may ñaanal ku ci mel ni Serigne Fall ak xam nga Mamor sëñ mamoor sëñ moor Fall maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sëñ Asek borom ndigal waaye moo ko maa ngi nuyu boo xam nga sëñ Alpha Cissé bu baax al amin borom yaraax eh al amin waxal yow. di bëggee xam nga Amadou borom mbuur maa ngi koy bëggee bu baax di nuyu Mouhamed Ndaw ñu koy wax angale angale combat bi sa combat la suma mbokk la suma nijaay la xam nga suma deret la saalum saalum la te deret bee ko yëngal di nuyu képp ku nga xamante ne saalum saalum nga képp ku deretu saalum saalum di daw sa yaram man ture ture bi maa ngi lay woo man pasi pasi bi maa ngi lay woo ngeen ñëw jàppale ma ñaanal ma yàlla may ma ndam la 24 di woo baax anglais xam nga di di woo nu mu tëddati. xanaa benn woote ko nar benn woote laa koy def Baye Fall Baye Fall maa ngi koy nuyu bu baax borom Fajut di nuyu Baye Ibou Dramé maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Baye Niass di nuyu Bekaay jóob man maay doomu Bekaay jóob Bekaay jóob combat bi combat am la. combat bi combat Bécaye Diop la Bécaye maa lay wow bu baax si combat bi di nuyu sëñ Abdourahmane borom bayre yi combat bii la sëñ Abdourahmane borom wax ji jeex na boxam yey noonu la demee nag di bëggee biram di nuyu Cheikh Dramé Cheikhou maa ngi koy nuyu bu baax a baax baax ak magam Mohamed Mohamed Dramé borom Bousra di nuyu di woo Baye Youssou non non Baye di di woo bàyyi Youssou borom Boussra di woo suma rakk sama xarit ah Moomin borom Boussra di woo Mohamed borom Boussra di woo suñu Baye bàyyi Youssou borom Boussra di woo Moomin borom Boussra combat bi seen combat la maa ngi leen di tàllalaat sumay loxo samay mbokku Saalum Saalum lañ xam nga di woo waa Koungheul waa kafrin bàyyi ma kenn waa Mbirkilaan fépp fu nga xamante ni Saalum Saalum mi ngi fa man maa ngi lay woo. dafa am ñoom ne mënu ma leen a bañ a woo. waaw waaw waaw xam nga di woo Baye Jimba boroom Kër Yoro Baye Jimba juuf maa ngi koy woo bu baax baax baax kombaa bi combat la di woo Fallou waaw woo Moustapha Diouf eh Diouf waxal yow barki sëñ bi sa combat la non Kama Baye Kama di woo Mbacke Ndiaye Mbacke Ndiaye suma mag suma xarit combat bi combat am la mi ngi ci gar bakkanam di dégg lu ne. mu jaral ko mu xar tànk tubéyam Mbacke Ndiaye borom wakaam bari sëñ Fall combat sa combat la Mam Mor Fall ko sànq ak Serigne Fall xam nga di woo euh, Seydou Dia di woo Matar jantal Mara borom Mbour bàyyi ma ko de Matar jantal Mara combat bi sa bis la di woo Mori Mori borom Mbour doomu ndey sëñ Abdourahmane borom Bayrey Mori combat bi am la di woo ma la sam waay ma kenn de Muumin borom Boussora wax naa ko léegi. diwoo woo Mor sëñ Mor Ndiaye sopp na bi borom Jolof sama xarit la Mohamed Dramé borom Bousra bàyyi ma ko de bari sëñ Fallou. suma xarit ndongo daara. doomu nday Ablaye suma rek. ñii ñi ngay woo ñii ñii. di woo pël bu xees bi njool mi. eh Ousmane. eh pël bu xees combat bi sa combat la doomu nday Serigne Fall doomu nday Moustapha Diouf. eh Ousmane njool mi waxal yow combat bi sa combat la di Demba Sène. Euh, bari sëñ Fallou ñii. dañ àndoon man ba combat bi tool fii. semaine bi laa leen desel. baa ma gërëm leen woo leen. foog ma woo leen parce que suñu paree maa ngi yow ñu tàññaañal. waaw mais nañ nekk ci combat ba pare après. bu ma te moom woo naa ko di woo Lamine di woo Oustaz Ndaw borom unité 18 nongo kii euh, Oustaz nongo daara la yor daara foofu maa ngi ko ziar bu baax di woo Oustaz si di woo Pa Diallo Pa Sakho borom unité 3 maa ngi koy woo bu baax Pa Samba saw maa ngi koy woo xam nga Pa Souley Pa Souley borom Joal Fadiouth Pa Souley doomu ndey Baye Fall almaami almaami mooy xaritam di woo Pa Souley bu baax borom Géejawaay maa ngi koy woo bu baax a baax a baax di woo Baye Youssou borom Boussra di woo sàmmanduur Ndour wër na sëñ Fallou eh Samba Ndour bii sa combat la maa ngi lay woo bu baax xam nga ma xam. suma papa nga sa doom laa la ca des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla waaye bàyyi naa la combat bi ci sa loxo sàmm duur bu baax a baax sëñ Abdoulaye Mbacke maa ngi koy woo bu baax sa xam nga sëñ Abdourahmane maa ngi koy woo sëñ Alaaji sëñ Alaaji Aan borom Koungheul maa ngi koy woo bu baax a baax sëñ Alla borom Bambey maa ngi koy woo sëñ Babacar borom Sibi Xotaan maa ngi koy woo sëñ Fallou Mara boroom Kër ma saar maa ngi koy woo sëñ Mbay borom Ngaay Mexe borom Kébémer maa ngi koy woo bu baax sëñ Moussa Diagne Touba maa ngi koy woo bu baax a baax sëñ Cheikh Mara maa ngi koy woo sëriñ euh, Cheikh Tidiane Sall borom Géejawaay Cheikh Tidiane Cheikh bi sa combat maa ngi woo sëriñ Fall bu baax sëñ Lamine Cissé maa ngi koy woo sëñ Modou Faye maa ngi koy woo suma xarit la suma wërale papara sëñ seet naa leen borom Caaroy wërale sëñ ko baa bi sa combat la seet naa leen maa lay woo bu baax baax baax maa ngi woo sëñ Thierno Diop xam nga si Sidi bàyyi ma kenn daal waaw wóor na sëñ Fallou Mbacke maa ngi woo daal ñëpp ñuy jàpp si combat bi maa leen di woo bu baax waaw wasalaam. ñu ngi ñëpp xam nga tamit lamb ji fi nga ko bëgg a tey dama def ay émission ko commencé bu yàgg woo ma leen xam nga dafa rafet te dama gis coono ñu daj si bis bi ma gis ni man a sama waay ñu bëgg bis bi comme ni ma ko bëggee. mu mu jaral leen lépp waaw maa ngi nuyu tamit tabara suma xarit si saal bi usmaan Thiam Papis Ñaama Jibi Gomis Seck Gomis waxal ci làmb ji ñooñu après nga nuyu leen Abdallah baa ma waa ay sa combat ak Gamou Gueye ndax ci gàllaaj nga ko bëgg a yàlla xam na ni gàllaaj sax man bàyyi moo xel sama gars yi ñoom ñooy dox loolu man damaa ñeme coono Lamine damaa nangoo entraîné damaa gëm sama bopp damaa mën a bëre mën naa xeex ñeme naa li may def wax naa ko ko première face à face ma ne ko man bàyyi ma la sax xel du toog sax sama xel di nekk si yow bàyyi ma xel sax ba xam yow lii nga mën wala mënoo lii man xam naa lu ma mën te xam naa ni moom su dëggalee boppam ma dëggal sama bopp dina xam bant Tapha Mbeur lan la parce que xam naa ne umpale na ma. waaw umpale ma moo tax sax moom maa may dégg wax yi may dégg si biti. mooy la. ñàkk xam au fond man li ma mën ak li ma mënul. jàpp na ni ku fekk ku muy ñëw rek sëq la sànni man gëm naa ne buñ bokkee entraînement mu respecté ma buñ bokkoon contact mu respecté ma lépp lu ñu bokk amul kon lenn lu ma koy bàyyi xel. moom nga am yow tamit umpale woo ko ba jël avance. umpale wu ma ko dama ko nangul champion moo tax ma jël ko parce que tey bëgg naa doon dara. ma gëm ni moom champion la ma bëgg a wane sama bopp waaw moom bàyyilu ma ko dara lépp lu mun nangul naa ko mais moom dafa ma umpale nangulu ma dara dañ koo jàpp dañ koo gëmloo ni ki ngay bëreel benn comédien la munul bëre du entraîner mais bon anyway lu mu gëm baax na yàlla ñu yàlla may ndam si kawam waaw. Hmm. yow xam nga ay qualité am ah nangul ko champion rek li nga seetaan ci moom ay combat lan mooy ay waaw am na qualité comme mbër yëpp xam nga mbër yi man naa la xamal leen tey génération bi ngay gis yëpp amul ku si mënul bëre amul tamit koo xam te ne am na ragal na ko waa parce que làmb gëm naa ragal amul gën a ñeme nag am na gën a ñeme nag am na mais ragal mais man bàyyi moo xel man ko sigi mooy sama entraîneur ak Pambay donc kon du ma nekk foofu di sóor lu mun ak lu mun wala ma koy vérifier du ma toog ba koy seetaan yàlla xam na loolu hmm. waa parce que man gëm naa ne su ba taxaw non non moom moom du ma téye waaw Gamou Gueye góobamu téye ma mënul nekk sax yàlla ñu yàlla may ndam si kawam mais man du ma toog sax bay ibbi vidéo gaamu Gueye wala muy indi lenn si moom di ko seetaan. mais seetaan nga combat ma Coly Faye 2. ay combat yi xam te ne romb na mais maanaam comme période préparation bi ma dem di ubbi di seetaan naan xaaral ma xool fii mooy faayam ak yooyu man fu ma ko jekk moom si moom. seetaan nga combat am ak ak ak ak Pape Ndoye. seetaan naa boobu maa ngi si tribune yi bëreeguma bii bëre Pam Doy man bëre gu ma aareer maa si bi di ko seetaan boobu dama ñëw estade man sama baab mi ngi woon en face Iba Mar Diop man dama daan ñëw rek dugg estade te passé laa daan jóge donc man mbëri bëri ngay gis fii dama leen seetaan avant man may ñëw si laam kumba yi bëri man dama naan sama saag ma daan jaagee dama si daan for ay galaaji mbër ba mu fees sama baabaa nga daan jël sànni ji ko man mbëri bëri amaana nu ma leen maîtriser amaana ñoom sax mën nañ ma bañ a xamee noonu. maîtriser nga de nga ko moom maîtriser nga ko doy waar <laughs> soxor. soxoramul te soxoram ñun bàyyi ko xel nee naa ko góor du yërëm góor man bàyyi ma xel loolu sax Lamine yow yaa gis soxoram. Ah, dafa soxor kay soxoram kay ñëpp ko gis. bu ma soxor doon rey moom du ma xam làmb sax du ma xam su ma soxor doon rey man njabootu làmb duñ ma découvrir. bu jekkoo du baale de. bu ma bu ma ñàkk a baale doon rey man làmb du ma découvrir. ci xaaruma ci moom yërmande njëggal ak yërmande ci yàlla suñu borom laa koy xaar may ma guux benn góor. waaw dégg nga kii ñu amul ñu làmb benn njëriñ. sànni jëppil sànni jàll. jàppi ko ca àll ba kay. ñun ku ñuy la ku ñu dimbaliwul merci beaucoup. waaye nag naa la benn affaire gàmmu doy na dafa gàmmu mi xeeb yow dañ doon xaar gàmmu xeeb la mais yow yaa yow yaa xeeb gàmmu. yàlla yàlla tere ma ngay xeeb yàlla tere may xeeb mbër du ma xeebaate mais it la ma la waxoon rek inquiété wu ma quoi jaaxaluma defuma problème defuma équation tooguma mu may inquiété suñ Fallou la la yaakaar yàlla. maa ngi néew. maa ngi dallu boo ma xoolee dama am teint te man aw ma woon teint. da nga amul woon jabar dëgg la sama vie dafa gën a stable damay ñëw di lekk ba suur ñëw fii tabara di mu petit béyee xam nga yooyu yëpp daf may jot teint. mais nag moytu nag balaa balaa ngaa ñëw. Ah, di ko xoolee fenn ñii ñii ñan la. da yokkamtalu <laughs> ñoom Gris Bordeaux ah ah yaa ngi tooy ñaare Gris ñii ñan la. waaw yéenay waa ñan comme ñu door ma ba sama bëri yi def noonu. foog nga moytu hyperkit yi hyperkit. <laughs> non non door war a. bëri baax na gis nga hyperkit hyperkit ki mu jaaxal rek la moo ko ki mu ki mu ki ko rek rek la jaaxal. ma ragalu ma hyperkitam xam nga man. néew ma la gàmmu gay mënu maa dóor néew ma la gàmmu gay du ma dóor bañu ma mu dóor ma. mais gis nga Lamine. góor yàlla la may góor yàlla. mu yor ñaari loxo ma yor ñaari loxo mu yor euh, euh, ruuxu. mooy li ñu xam ne bu ñu ko dindee yow faatu nga mu am ruuxu man ma am ruux te ruux mooy yëg ñoppati ruux mooy yëg màtt ruux mooy yëg gajj ndax suñu génnee sa ruux gi su ma la daggee da ngay noppalu doo ko yëg kon ruux goo am ci man moom am na ci moom su dóoree mooy sama ruux gi yëg ni man dóor nañ ma saf na sàpp su ma ko dóoree noonu lu ko ruux gi di yégee waaw moom man naa bàyyi xel dóoram rek mais moom bu mu bàyyi xel dóor dégg nga. moom bu duggee ci géew na dafa mel dañuy rocc ruux. <laughs> ku ñu rocc sa ruux nga ne nemm déggoo ma ne <laughs> yàlla may jàmm ba bis ba moom na ruux gi dañ waaye bu ma ko dóoree dina ko yëg man nag ba bañu ma mu dóor ma ndax dóorante la bëri dóor la ñuy def su ma ñëwee ne la gàmmu koy du ma dalak wala du dóor yooyu damay nax sama bopp mais man bañu ma mu dóor ma. parce que ragaluma mu dóor mag waa dañuy xeex dañuy bëre lu si waa yow lu mu laaj ñu def ko man bàyyi moo xel. góor yàlla góor yàlla loo mën si man defal. bàyyi moo ko xel moytu ma ko yàlla mooy may yàlla na ma yàlla may sa kaw mais boo toogee jàpp ni Tapha Mbeur mi maa bàyyi xel sa waay yaa ngee juum yaa ngee nelaw man bàyyi moo xel man saalum saalum laa pasi pasi laa Touré laa sant yaa ngi dégg waaw yàlla ma yàlla may jàmm. boo santee Touré yàlla jàmm lañ koy ñaan bu ñu amee jàmm waaw lépp mën nañ koo am yàlla ñu yàlla may jàmm Lamine. soo jëlee combat ñu ëpp ci ñi ñi def seen jàngat jàpp ni dañ la man loolu loolu loolu lu mu lay def. waaw comme combat bii nii rek. waaw ñu bari dañoo jël yàlla bëri na sutura daal yàlla ma yàlla suturaal may man ndam. loolu la loolu xanaa gars yi wala ñeneen ñi koy dégg mais man aw ma jot sax gars yi duñ ma gis ci bitt lañ koy waxee. waaw daf may yokk courage gis nga li may daj fi moom laay daj saa su ne damay ñibbi sax guddi gi ma dem entraînement waaw parce que tey xamala moo tax nee nañ as gor buñ ko tuumaalee dafa war a góorlu ba tegge tuuma bi yaa ngi dégg te eh, mën mooy lan man xam naa ni heure yi may tërën mi ngi koy dallu moom malgré mi ngi entraîné mais man gëm naa ni li may tërën moom du ko tërën dama fooyee làmb fooyee bëre màggee ci maanaam taatu tefes d'accord jaar si lu bëri ñeme lu bëri mën a bëre nag kon tey su may bëreeg moom nit jël favori jox ko bañu ma ko de waaye moom bu ko dundee à cent pour cent mi ngi nax boppam waaye nag la fay lépp lu nit di mën a wax su bis ba jeexee rek la mën a doon mais isaa bi ku si nekk sa xalaat rek nga mën a wax te làmb nu moo baaxoo noonu ku ci nekk am nga droit gis ne man lii laa gis lii laa gëm yàgg na si làmb làmb ja jeex ñu ne ah pourtant li ma gëmoon mooy loolu de mais li may ñaan yàlla euh, li ma waxoon suma gars yi essai yi ah la dégg combat Tapha Mbeur Gambaye ah, mais damaa bëgg suñu paree ñu dégg oh, oh, oh, oh loolu la ma xaar. mu nekk genre surprise quoi pas surprise de oh kii du nit. nekk surprise ah, ah waaw xam nga ñëpp ñëpp newuñu ah mais ñu doon ah, di jeexal seen doole nañ noppalu ne oh foofu lay xar gis nga àdduna àdduna bul bañ gaay di teg ay galgal di bul bañ gaay naan mënul ne. bul bañ gaay yi est-ce galgal nga ko war a tudd. waaw galgal la parce que boo. moo gis la rek boo ñàkkee maayin dangay ngay da ngay da yox yoxi dama demoon Saalum sama benn maam ne ma dafa mu ne ma loo am sa fit moo la ko may waaye loo ñàkk sa fit moo la ko xañ bu sa fit loxee ne mënoo am lii doo ko am bu sa fit dëgëree nga ne lii dama kaa war a am da nga koy am wax la ma wax de attention de loo am sa fit moo la ko may waaye loo ñàkk sa fit mun na la kaa xañ xam nga lu tax sa fit bu loxee rek ne lii est-ce que boo ko ñàkkee yaa ko xañ sa bopp waaye bu sa fit dëgëree nga ne lii dama koy jot soo ko amee yaa ko may sa bopp kenn may la ko te man dama gëm ne damay am. sa fit lu wax. que damay am. que dafa gëm ni mala sam waaye arbitre moo ma teree jëli li ma moom ci kàttanu yàlla ak mbaaxam te incha allah bu arbitre sifflé ni ma ko gëmee noonu laa koy defee man xaaruma ko dégluwuma ko dama jël si li ma moom te incha allah li ma gëm mooy dama ko fay fekk jël dem ñibbi ànd ak moom parcelle. maanaam Tapha daal li mu gëm moom ak Estafam mooy li li daan gàmmu euh, gi moom ñu liggéey nañ ko ba téye ko. mu ngi si ñun boo gisee sax wax ji bariwul tey ba ma génnee comment sax li ma seen interview bëriwul parce que timing bi moom laa si amul. lël bi ñu ma lël ak entraînement bi ak yi may def donc moo ma sax mayul temps wu génn di exprimer wu waat li ma mën mooy dëxëñu def li ma war a def gëm naa ni li kay daan mi ngi si man li ma mën rek mooy denc ko ba bis ba ma wan ko ñu doon wax ah bu ñëwee oh du ma bett parce que def naa suma xel ni ñoom dañuy wax ji oh te ndam yàlla moo ko yor ñoom ñi jël ndam jox mbër bi may bëreel ba pare. daal li ngay wax gars yi joxu kenn joxewul ndam gaa yi seen. nga ne moo mën kooku mi ngi ndam ci posam non peut-être dañu jàpp ne dañu jàpp ne moo mën. Lamine bu nu naxante. kii moom mën mooy ça veut kii mooy daan. mais loolu loolu dëgg. yow favori favori la ñuy joxe rek. déglu ma rek ah. su ma nee lii yaa ko moom ça veut dire booy dem da nga koy jël yóbbu dëggam déet kon su ma nee Lamine yaa mën diw ça veut boo fa fi eggee da nga fay dem daan ko ñibbi loolooy dëgg mais nag ñoom ñi ko jox ndam loolu danaa gëmal ni ndam yàllaa ko yor te lépp lu la yàlla suñu borom jox ci sa morom la ko jële kon ça veut dire que amul kenn ku muy faral mooy xool ku ko neex mu jox ko lu ko neex te maa ngi ñaan moom mu jox ma ko ci kattanam ak mbaaxam. moo tax nga am sa fit bu dugg biir këram. waaw yow yël seen boolu ceeb maire yeeg paa yi di eh, di karaama la sama waaye ñii di gëbal benn booy di xaw a mer yooyu bi maire yi di xuloog man benn booy bi dugal loxoom te lekk ma xam ni dañoo xaw ak mooy loolu xiif quoi. ma dawal yërmande tegaat fa bool ceeb bi ne leen gaan su sa waay ñëwee ngeen na ko jaan suuf tàng suuf yàgg yàgg dinañ daje. te le di ngeen daje arène arène nationale. le 24 décembre dinañ daje arène nationale ma wal na ko lan la ma coach gi entraîné lan la ma Pambay entraîné ak ñoom laat ak ñoom Conke Sil. moom tamit mu ngi ci ay entraînement yu métti ànd ak ñoom Bolo ànd ak ànd ak ak ñoom doomu dàngu a neex ñoom ñëpp nekk ci ginnaaw. ak ñoom xaw ma nan kii nan boxeur ay ñoom ay ñoom ay ñoom Papa Yada. ay ñoom xaw ma nan <laughs> xaw ma nan boxeur laay boxeur ah, ay ñoom xaw ma nan wàdd maa ngi koy dégg su koy wax day neex nag waaw. <laughs> kañ nga koy bëgg a su koy wax loolu day neex dégg mu daan xëy ñoom ay nan boxeur. dof la ci géew de. waaw du dara gis nga dof gën a dof moo fi am dof da koy gën a dof. waaw yow loolu du lu ñuy wax nañu yàlla may ba bés ba rek man bàyyi moo ko xel. liggéey naa am naa doole mën naa bëre waaw te bu arbitre sifflé moom moo mën na ñëw wan ma ko wax bi du dara yaa mën Gamou Gueye bu arbitre sifflé kaay wan ma ko bàyyi ma la xel ñëwal nga ne ma Tapha Mbeur maa la mën arbitre ne far nga naaw dóor jàpp daan bu dee dëgg la ci yow di nga am lu la bett si kàttanu yàlla ak mbaaxam. su ma nee waaye su su ko munee rek na ko def ndax góor du daw. waaw te bisu dee bu jotee rek dun doogoor su ma munee lu mun na def ndax man su ma munee lu ma mun dinaa ko def moom dañ kaa gëmloo ni yaa mën boo bëree bu arbitre siffle rek appliquer mbër bu dee dëgg la bu arbitre siffle rek appliquer. yéen ñaar bu ngeen korante. waaye luy korante gis nga maa ngi moom. ñaari kaw nga am yow. waaye yow dafa ne la li ma am saamu ko. yow ñaari kaw nga am. man sama bii ma jógee mooy cinquième yaa ngi dégg man yooyu sa fàtte naa ko man moom laay bàyyi xel moom laay. préparé moom laay waajalal te du ma ne ko lii laa lay waajalal moom nag li muy waaj boppam la waaye liñ ko gëmloo damaa bëgg war bi siflee moom mu jóor ko ñu jiiroo ko maak moom si kàttanu yàlla yàlla baax na maa ngi woo képp kuy saalum saalum waaw di woo sama entraîneur ko su gii ndax moom mooy suma papa mooy sama yaay mooy suma mag mooy suma nijaay mooy suma xarit moo may jàppale moo may conseiller moo may attaqué moom may teg si yoon moo may classe moom may tagal bandi moo ay defal lépp xam nga moo may entraîné kon tey si moom laay tàmbalee waaye si moom laay yemaat ndax su ma wëree ba tamit si moom laa jëm si waat fa laay tëjaatee di nuyu pambay bu baax ak waaru énergie mbëri écrit bi yëpp bàyyi ma kenn waaye nag saalum saalum yi maa ngi leen di woowaat di leen wan ni soose yi am nañ Balla Gaye 2 am nañ saakees am nañ ay mbër mbër séeréer si am nañ yaxe yaxee Jóob Yékini am nañ man la ay Siteu am nañ man la sam waay ah, ay Eumeu Sène joolaay tamit am nañ Eumeu Sène xam nga séeréer saa fee ni am nañ Modou Lo yaa ngi dégg waa kajoor am nañ Modou Lo tund kajoor bi kon tey saalum saalum yi tafaa mbër la am waa nañ jàppale tafaa mbër mu dégg daali fu champion roi des bi yegg incha allahu rabbi Modou Lo moo ko téye ak drapeau bi su Modou doyalee dénkuñu ko ñu ñu gën a falaade drapeau bi si kaw a kaw donc maa ngi tàllaat samay loxo képp kuy saalum saalum di la ñaanal di sàkku ñaan si yow yàlla may ma ndam yàlla def ma ma doon champion maxi làmb incha yàgg-yàgg dañuy daje. duubal na fi kër gi yëpp ah, ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi.